mbokk internet yi seetaan NGT TV Sénégal ñu ngi leen di nuy di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen suñu chaîne ndax dafay jotee ay xibaar ak ay jàngat yu wér te wóor waaw Walfadjri ni ki tey ji doon nañ amal benn toogaanu ñaxtu fële ca seen buntu makaan nga di fajiri nekk fële ca Liberté 6 ñoom daal li doon ñaawlu mooy CNRA eh, dog gi nga xam ne dog na ko seen signal diirub juróom-ñaari fan ñoom daal ni ki tey jii loolu lañ doon ñaawlu mbooloo ma nag bari woon lool ñëpp teewoon fa seen confrères journalistes si ñoom ñëpp teewoon nañ fa ngir bokk ak ñoom naqar boobu nga xamante ni eh, teg nañ leen ko naka noonu ki nga xamante ni moo jiite euh, kër ga di Cheikh ñas nekk doom ci Sidy Lamine Niass bi nga xam ne moo fënde kër googu moom jël na fa kàddu di xam ne ni daal xeex gi ne xeex Walfadjri njëkkul tey jii waaye ñeneen tamit jël nañ fa ay kàddu keneen tamit ku fa jël kàddu di pap Alé Niang moom journaliste bi njiital Dakar Matin moom nag euh, li mu xamle mooy euh, tey taxawaay bi nga xam ni wol Walf am na ko Euh, bettul euh, kenn ndax ki nga xamante ni moo sos kër googu di euh, di Lamine Niass tey kon tey ki nga xamante ni mooy Cheikh Niass yor ko di ko doxal noonu moom daal mu jëwal pousse bu mu réer loolu kontaan lañ ci am doxal gi nga xamante ni Cheikh Niass mi ngi koy doxal loolu nga xam ne moom la ko waajuram wa dénk bi ñu defee woon ni Walfadjri lu mel nii nag ci jamono ju yàgg ja ki nga xamante ni euh, moo fi nekk njiital réew mi tey jii di président Macky Sall moom moo fa njëkkoon a teew ngir ñaawlu jaay doole gi nga xamante ni ñu ngi koy euh, jaay kii di ñii di faj Walfadjri kon nag tey bu ñëwee ba moom mu jiite réew mi lii lu mel nii di xew loolu mbetteel dëgg leen ci am. ki nga xamante nii mooy euh, Babacar Diagne njiital CNRA. moom li ko war mooy eh, dem yor kurusam toog noppalu ndax góor mënul ndab lu ne nga bëgg caa lekk ab Abdou Diouf ñëw nga ànd ak moom war di ñëw nga ànd ak moom ba tey jii nga topp ci ginnaaw Macky Sall di ko dunguru loolu góor moomiwu ko ba tey muy xam le ni RTS ñun suñu xaalis moo fay dem ñun Sénégal yëpp ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy directeurs yi seen télé yi sax courant bi nga xam ne ñu ngi koy fay dañ ciy comp di ci jox waa RTS ba pare euh, ñu ni waa opposition duñ fa wax wal fajri bi nga xam ne moom mooy dalal waa opposition bi ñu coupé li nga xamante ni mooy signalam ba pare jël RTS jox ko koo xamante ni sa parti la bokk jël timit la Soleil jox ko koo xamante ni sa parti la bokk ci loolu ki ko def mooy état bi ba tey moom pap Alé Niang muy xam leen daal euh, nanu am fulla nanu am euh, fayda am jom ba pare ñemee xeex bi nag ndax lii ñii ku janoo ak ñoom il faut nga xeex ak ñoom ndax injustice bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg di ko teg fii ci réew mi loolu du masa jàll Pape Alé Niang tey jii ginnaaw bu mu jëlee kàddu ca ndaje mi nga xam ne Walfadjri doonoon ko amal fa ci seen euh, makaan way leen di abonné sunu seen ndax daf jotee ay xibaar ak ay jàngat wér te wóor